Tous les jours, à pareille heure, ces conducteurs de Jakarta scrutent avec attention les différentes allées qui mènent vers eux à la recherche d'un client potentiel. C'est presque une question de vie ou de mort, vu la manière dont ces cascadeurs improvisés slaloment entre les voitures. Une course contre la montre pour faire plus de livraison ou d'accompagnement afin de gagner leur pain parfois au péril de leur vie. Ousmane Diop est l'un d'eux. Chauffeur de profession, il a décidé d'être conducteur de Jakarta ou Tchak-Tchak dans le langage courant pour subvenir à ses besoins.

Ce jeune homme ne regrette pas d'avoir quitté son travail de chauffeur car il arrive à bien gérer sa famille en étant tchak-tchak. Par jour, il peut gagner 15 000 francs CFA en bénéfice. Une somme qu'il ne pouvait avoir dans le passé. Conduire une moto ou tout autre véhicule à deux roues nécessite une protection à cause des gros risques de chute qui sont fatales. Au Sénégal, il y a chaque année de nombreux accidents liés aux mototaxis ou Jakarta. Ousmane Djoub est bien conscient de cela. D'ailleurs, il est différent de tous ces jeunes qui se sont reconvertis en conducteurs de Jakarta sans permis de conduire ni connaissance des techniques de conduite. Et d'après lui, ce sont ces manquements qui causent les terribles accidents que nous constatons tous les jours. man trois ans maa ngi si cag-cag foofu man damaa def kollaaru ba pare dawal oto ba pare ma doog a ma doog a dugg si cag-cag lépp looy def teg ko si yoon dawal booyi boo ko dawalee léegi nga de. dugg foo xam ne waroo fi dugg jaar foo xam ne waroo fi jaar soo xamee soo xamee foo war a jaar doo sonn soo xamee foo war a do sonno koy dugg da ngay xalat ba pare nga doga a lolou moy dewal dawal dewal dawal xamne jeeg ne nit rek nga dubule ko rom ko rek nga dubule ko rey nga sa bop koy dañu dewal dawal ñu dawal dawal boko tege ci yoon cinquante dara du la fekke nyu ñu ñu nit def ma tay ñoo fekk la ana lolou la de wala ndogal yalla dafa nga daanu de loolu la kese foofu pour si accident dootul yomb koo parce que xam nga fooy teg sa pono xam nga fooy teg sa tànk maa koy bàyyi xel bu baax a baax parce que man tubaab moo ma jàngal dawal def naa quatre mois si auto école waaw man étranger la ñëw si réew bi fii yàgg naa fii na loolu maa ngi liggéey fii kon lépp li may liggéey dama koy teg si yoon parce que su ma ko tegul si yoon boobaa si man lay metti quoi moo tax lépp li may def dem koy jaarale si yoon quoi trois ans ni maa si càccak ba gis ma lu may métti quoi jafe-jafe fi nekk ay jàppante yi rek ñi fi nekk ñi mënul dawal rek ji dugg si moto yi mënoo dawal ba pare nga dugg ngay risque ngay jaay nga jaay doole di dawal loolu mooy indi accident yi bari parce que tournal boo xam ne soo koy tourné da ngaa war a xam nooy tourné booy booy daw si diggante ni da ngaa xam ne nii laay duggee booy dugg si oto danga ngaa war a xam ne nii laa war a dugg diggante oto yi ngay dugg si param param xamoo nooy nooy duggee xamoo nooy génnee boobaa boo bu la tàncee yaa sonal sa bopp loolu moo sonal ñi fi bare Ibrahima Kébé, lui, est un bachelier. Il a eu son diplôme en 2018. Contrairement au Tchak-Tchak, il définit son travail comme étant un livreur. Il se charge de faire la livraison de courrier d'un point A vers un point B. Grâce à son travail, il a pu économiser et épouser sa bien-aimée. Cela fait six ans maintenant qu'il fait de la livraison, un métier qui lui a permis de garder sa dignité, même s'il n'a pas eu les moyens de poursuivre ses études. liggéey bu tax ma dugg si nag dama pare sama bac en 2018 Mais boobu ba léegi maa ngi def ay formation yooyu noonu mais xam nga Sénégal rek euh, loo mel sa bopp di nga yéex a gis ku la si jàppale bu baax moo ma gën a poussé ak sama jom ak sul ak fayda xam nga ne soo toogee di soo liggéey dina la si yàpp loo tax euh, moo par exemple en 2018 ma dugg si métier euh, moto lu ma si dugal nag maanaam jom ak fulla parce que livreur laa parce que gars yi dañuy juwàll sax nga nekk livreur ak cag-cag parce que am na différent livreur maanaam moom mooy kuy jël ay colis ay yóbbante di ko yóbbu point di ko jëlee point A di ko yóbbu point B kooku livreur la mais càq-càq manam mom moy ki jele nit point A yobou ko point B jele nit point B yobou ko point C mom moy difference bi mais gars yi dañuy jiwaale léegi càq-càq rek la ñuy wax même léegi xàmmeetuñ sax ki nga xam day yor mbotam di dawal di liggéey ak ki nga xam ne nii lii moom mooy wax fa deug yalla man mo ma commencé ba léegi gis na sama bok même sama collègue bi nee 3 ans la ci def man wax ci souf suuf te man bientôt ma ngi dugg sama sixième année ba fa dëgg yàlla kenn mësuma si yàpp am naa si lu nekk takk naa si jabar yor naa sama bopp kenn xamaluma dara te yaakaaram si kenn dara lu nu métti si métti bi nag maanaam jàpp yi métti na lool lool dëgg la mënuñu ko bañ mais tamit nañ si dawal yërmande comme

mais mënuñu ko parce que amuñu xalat kan mo leen di jàppale tey risque la ñuy démé Ibrahima, ce père de famille, est satisfait de son métier malgré les dangers, car il arrive à gérer ses besoins et ceux de sa famille. Ça dépend rek parce que xam nga jour du dimanche des fois tey di nga xëy liggéey mun nga tey mun nga teel a yeewu ñëw toog plus de deux heures de temps doo gaaw am client mais am na jour yi nga xam ne da ngay teel a yeewu teel a ñëw sept heures. Au Sénégal, il est difficile d'entreprendre et de s'en sortir, car tout travail qui marche est envahi par les chercheurs d'emploi. Il y a trois ans, le métier de livreur était plus payant. Aujourd'hui, les jeunes qui n'ont pas de métier ont tous acheté des motos et se reconvertissent

su cag-cag doxul ñu mën ma ne car Ibrahima dama la soxla livraison loolu naa si mën a départ na sama bopp tax na tamit man lu mu mënti am journée bi lu mu néew néew néew naa atteindre sama somme ba dix mille francs quinze mille ba vingt mille su neexee ba neex mun naa am benn vingt cinq mille su nakare tamit mun naa am dix mille francs si biir dix mille francs yi naa atteindre sama somme naa jël cinq mille francs def ko réserve le reste ma euh, gère ko ak sama yooyu noonu dóor daanu quoi mais lépp lu nu ñaan état bi nag mu jàpp nu te yàlla tax ndegam ñun gisuñu moom moyen yum nu jox ba ñun ñu liggéey si yàlla na nañu liggéey bi nga xam ne ni jeunes yëpp même pas yi sax léegi dugg na si métier bi ku si nekk yaa ngi si gis sa bopp de grâce nu bàyyi ñun ñu liggéey quoi parce que de préférence moom mu joxoon liggéey bi nga xam ne ni tey ji suñ si duggee ah dina xam ne kat état bi moo moo dimbalee lii ndaw réewam gisuñu ndimbal bi nga xam ne ni état dugal na si loxoom gisuñu si maire gisuñu si kenn yàlla rek moo fi nekk comme nag ñun jot nañ si liggéey bi de grâce nañ ñu dimbali te yàlla tax parce que tey suñu nee jàpp vendredi vendredi loolu noonu da ngay empêcher nit ki liggéey suñu nee Ousmane Sonko Macky Sall ñu tere na liggéey loolu def ñuy pénaliser parce que tey jii soo gisee ni suñ ne Ousmane Sonko dafa am tey dafa war a dem tribunal wala tey dafa war a dem fii ni euh, def ay décret yooyu noonu. Les contrôles du vendredi ne sont pas les seuls obstacles qui peuvent freiner les conducteurs de Jakarta à amasser quotidiennement plus de 25 000 francs CFA par jour les tensions politiques aussi qui poussent parfois le gouvernement à sortir des décrets à leur encontre limitent leur zone de travail et leur activité, alors qu'ils ne reçoivent aucune subvention de l'État pour les soutenir ou leur permettre de développer leur métier, un travail qui, malgré les dangers, assure le pain quotidien et maintient leur foyer dans la stabilité.